pur et saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra sponsor officiel de votre santé Aquaterra moom lay naan ko defaree ci réew mi ay doomu réew mi koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sell na neex na baax yiw na dal na te it daf may dalal Aquaterra ndox mu c'est parti pour seen deuxième numéro émission balance saison 5 mbokkee xarit yi ñu ngi amaat mbégte ñëw di jàkkaarloo ak yéen niñ ko baaxoo di def mardi bi jot ci waxtu wile émission balance di rendez bi nga xamante ne moom mooy euh, le lépp luy am ak ak yelleef doomu aadama di rendez bi nga xamante ne li ko tax tax jug rek mooy xeex injustice xeex jaay doole xeex nooteel suñu invité yegsi na ci plateau bi suñu chroniqueur également yegsi nañu donc l'équipe est au complet parti pour deux heures de direct sur euh, Walf des sans voix merci beaucoup Pape salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur Walfadjri yëpp donc di nuyu sunu invité maître El Hadj Diouf di dalal euh, sunuy chroniqueur aussi di leen wax ne bienvenue voilà di leen wax ne rek euh, ñu ngi ci deuxième numéro saison 5 émission balance di leen wax ngeen xaar débat bi voilà ok alors tey euh, tout sujet yi ñu war a waxtaanee yan la. voilà tey Pape war nañoo waxtaanee point yu am solo macha allah yoo xam ne actualité la en même temps premièrement nag bëgg nañoo waxtaanee financement des partis politiques. Euh, voilà deuxième point bi ñu waxtaanee li nga xam ne mooy actualité te ñëpp a ngi koy xaar ci émission balance muy la l'affaire Sonko. Mhm. voilà deuxième troisième point bi mu nekk scandale du pétrole et quatrième et dernier euh, point nekk suppression des partis des villes voilà. loolu lañ fas yéene waxtaanee tey ci sunu émission. Mhm. voilà Pape. donc c'est donc parti sans plus tarder ñu bàyyi suñu invité mu nuyoog askan wi ñu bàyyi ko dalal également chroniqueurs yi mën a tàmbali waxtaan bi maître ñi ngi amaat mbégte encore une fois di la dalalaat émission balance. Pape euh, mbégte bi fi la parce que ñëw ñëwaat bu amee rek xam nga ne ko amul contrainte bànneex laa ci am te gis naa ne Sénégal yëpp dañu fonk émission balance ndax da ci jëlee xam-xam bu rëy. da ci jàng lu bëri ci prison yi sa waay gën a maa ngi koy nuyu Yves nuyu professeur Ndiaye nuyu professeur Ndiaye di nuyu mon doyen major major bu ma gën xam sax maam Fodé di nuyu jongama yu ñaaw lii ak seet bi mhm. aram xam naa ne borom këram mhm. ah problème paa bi yow amuñ sa sa sa ngërëm parce que mhm. dañ lay ñaanal yàlla gën la jox tawféex amiin jox la kàttan ba lii nga jublu mooy di leeral ci balance mm-hmm. nga di ko def ba yàlla yóbbu la fu gën a kawe eh, lépp ci jàmm ñaan nag Sénégal yëpp jàmm ndax Sénégal réew jàmm la di mm-hmm. nuyu téléspectateurs yi eh, di yàlla fi jàmm sax Euh, Sénégal euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te ñun ñëpp ñoo ko bokk donc euh, loolu dinañ si jël si. d'accord jàmm sax ci réew mi. amiin yal na jàmm sax ci réew mi ñu ngi ñëwaat léegi kon ci moom tàmbalee waxtaan bi ma bàyyi suñu chroniqueurs yeeg consultants yi ñu nuyoo Major Kandji. Pape ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu ñëpp comme ni ko El waxee donc di ñaan Sénégal jàmm am fii mm-hmm. lépp dellu ci jàmm et puis nit ku nekk xam. sa wareef ak sa àq li nga war a def ak li nga war a am mm-hmm. que nit ñi di tolérante di ku nekk gëm na sa morom ku baax la mm-hmm. parce que principe bi mooy boo xalaatee ne sa morom baaxul rek problème day am donc loolu mooy mooy comme ni El Hadj wax rek d'accord Ibrahima Sall Pape maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di beral euh, nuyoo spécial suñu avocat bu mag bi suma xarit maître El Hadj Diouf nga xam ne moom kenn dootu ko présenté askanu Sénégal. di wax ne joxaat nañ rek sénégalais rendez-vous si balance bi nga xam ne feskere nañ fi waxtaan boo xam ne njort nañu ne xam-xam dina fi génne mais également ci njeexintal bi ay solution dina génne parce que dëkk bi am jàmm yaakaar naa ne mooy suñu intérêt. Mhm. te xam nañu ne ci contexte bu doy waar la ñu nekk mu ànd ak feebar bu ñuy wax coronavirus ñëpp di moytu grande puissance yi sax euh, mënuñu ci génne kon dëkk bi fi mu toll nii laajul coow laajul dara lépp ñi ngi ñaan yàlla daal mu mujjee. ci jàmm ak salaam maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa Tëngéej euh, bi ma bi ma dëkk di nuyu préfet Djibi Diallo Jack Bauer mu nekk su préfecture euh, Dakar Plateau maa ngi koy nuyu bu baax moom suma sëriñ la suma xarit la di nuyu détenu yi ak seeni famille bu baax d'accord professeur merci Pape ñu ngi leen di euh, nuyu di bég ci teewaat tey ci plateau bi di ñaan rek comme ni ko ñi ma jiitu waxee réew mi nekk euh, réewu jàmm nit ñi dal ñu song li nga xamante ne moom mooy li ëpp solo ci jamono ji ñu toll nii muy feebar bi daan ko ba noppi kenn ku ci nekk aussi boo jógee nga euh, ànd ak sa sago euh, jublu ci li nga xamante ne moom moo lay jëmale kanam moom mooy jëmale réew mi kanam. tey nag plateau bi effectivement affaire de droit la li ngeen wax comme thème c'est vraiment très intéressant lépp lu luñ ci war a andi ci leeral dinañu ko indi pour ñi nga xamante ne soxla nañu ko véritablement ñu jëriñoo ko à tout à l'heure Euh, Ndeye Mamy Niang je devrais dire <laughs> merci donc Pape maa ngi leen nuyu di nuyu suñu invité maître El Hadj Diouf euh, di nuyu euh, professeur monsieur Ndiaye di nuyu Ibrahima mi ma toogal aussi donc di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan émission balance di leen wax aussi que ñu xaar tuuti rek ñu leen dugg ci débat bi joxe plus de détails par rapport ak thème nga xam ne moom lañ abor nar a aborder voilà joxe plus de détails mbokk xarit yi yéen ñi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel yéen tam également ci waxtaan bi ngeen bokk ah waaw Pape Ndiaye bonsoir euh, merci beaucoup maître si sa présence encore une deuxième fois franchement euh, mbégte la tout le temps di la euh, dalal si plateau blanche di nuyu rek ñi nga xamante ne ñoom la bokkal plateau bi balaa may nuyu askan yi nga xamante ne ñoo tax ma toog fi tey ci plateforme yëpp ñi nekk Instagram Facebook ñi nga xam ne ñu ngi si WhatsApp bi ak tous les chers téléspectateurs yi nga xam ne rek tout le temps dañuy xaar balance ak mbégte defe naa Pape débat yi bëri fille euh, euh, mardi bi passé je pense que toute la semaine on a parlé de balance on a parlé de la discussion qu'on a eu avec maître euh, nit ñi rafetlu ko torop mais bala may jóge ci loolu damay jéggalu téléspectateurs yi nga xamante nag ñoo ñu seetaanoon ñoo ñu suivroon ci plateforme